ci réew ak bitim réew waa li neexul ci wasaare lam saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa la mbaroodi de Pikine Baboy moom Baboy yëkkati na ay kàddu ca carrière am yëkkati ay kàddu ca Pikine nga mu dëkk personne ne peut m'exclure de Pikine amul kenn ku mën a taxaw bëgg ma génn Pikine kenn ëppale wu ma fi kenn gënuma fee yey kenn gënuma ko bëgg kenn gënuma cee bokk te damaa bëgg nag nit ñi xam ne je ne suis pas un peureux du ragal du tàppet du ma seen wax bari rek te amul kenn ku mën a tilimal sama der moom Baboy ca kaw la ga wax ju rëy jooje la mu njëkke mooy xeetu làmb ba am ca saalum muy roofoo mu ne yile mbër dañ leen a war a jàppale bu baax ndax am nañ seen place ci arène bi am nañ ay place ci écurie ya fa nekk boo leen gisee xeetu bëre bi ñuy bëre ak technicité bi nekk ci ñoom nga xam ne ay mbër kaamil lañu ba muy wax ci digganteem ak Balla Gaye 2 dafa xam le ne sama rakk ju ma jox cër la dañoo bokk luñ mënta séddoo muy Serigne Touba mu teg ci respecté ma fonk ma teg ma sama place a wax ne dara yéemu ma dara buurut lenn rek la ma nit mën a def mu saf ma mooy ma respect te jox ma cër weeg na ma doyloo na ma waaw Sénégal de la ñuy bañ moom loolee tax ma koy jàppale ba sagar xeeñ bu la nit cëralee rek ñu ne yeeyoo ko de lu tax intégré woo CNG mu ne sama njàng mayu ko mbiri administration daal Yékini ak Tyson laa koy bàyyeel xam sa bopp daal ci jaamu yàlla la bopp mbiri administration bàyyi ko ñoom Yékini nga gérer say fi mbaroo di ñu dellu laaj ko digganteem ak Ama Baldé mu ne lu yëngu ko yëngal a ko ëpp doole Ama Pikine la dëkk Pikine laa dëkk bu ma koy jàppale damay jéem a fay bor bi dox sama taxaw na ma fa lu ne defal na ma ko fu ne jaar nanu may jàppale Ama Baldé damay jéem a wax cuq ko gauche cuq ko droite baabooy ne patt ne du ca wax ñu laaj ko ci carrière mu ne bàyyi naa làmb damay gunge samay rak bëggoon naa bind livre waaye sama njàng mayu ma ko pourtant baabooy nag jàng nga ba bàyyi jàng mosoo jël ndaare xanaa kay da nga doon jàll rek ndaare bi yegsi fi mu nekk nii ci film la sama xel nekk ngir xale yi doog a ñëw xam kan mooy baabooy li ma fi def ci làmb bëgguma mu nax saay benn yoon waaw ah sa film de war naa neex moom xam naa long métrage bi yépp ay yëngal lay doon sunu làmb ñëw ci solution yi tax làmb ji du nax saay mu ne juróomi solution ngi nii buñ ci bàyyi xel làmb ji dellu fa mu nekkoon retour des sponsors sponsors yi dellu

moo fa neex Modou Lo Balla Gaye 2 Eumeu Sène Gris Bombardier tàllal gone yi ay loxo rax ca dolli ne foofee mën nañ fa am Modou Lo Ama Baldé Balla Gaye 2 Boy bu ñu amee Bombardier rëg-rëg mu gën neex ba saison bi tijjee ba léegi ñu ngi wax grand contre grand contre waaye benn grand réagiragul petit yi képp ay laaj juróomeel ba mu ne dañoo war a am CNG bu créatif ñoom CNG waruñu fee nekk rek di encaisser waaye dañoo war di organiser jëriñu Alioune Seye bu waaloog ñàkk jëriñu bu caaroy mbooloo xaadim sàmb taxawal na ko tey père xaadim sàmb toj dëkk bi nag diggante Baye xooyantaan keroog ca Gàmbi samedi toj na Baye ma nu simb gaynde la tey nga ne bu ngeen bëre woon fukki yoon nga daan ko yam nga ko nag buñ fi seconde di bëre 10 combat yu ñu bëre ma daan la 10 fois maa la mën maa la ëpp doole Baye Mandione ne ko suñu combat bii du mat sax dinaa la duma dinaa la daan Mandione 2 secondes combat ci deux secondes yi mat ka daan jokkeel di Maama moom double moteur lay laaj pare naa ci jokkeel na double moteur ñëw ma woon ko li ma mënee ah Maama a làmba ngi noonu nag jamonoy furle ku daan sa mag nga furle double moteur daan na fëggala nag nga bëgg a furle jërë ngeen jëf mbokk yi li nekkoon li gën a fës ci éti yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah Rahuprod présente l'événement de l'année à Dakar. Deux talents, deux styles, les deux frères réunis sur